Omar Ba ñu ngi lay maa ngi leen di fay soxna si. yow yaay porte parole intersyndical liggéeykat ya nekk ca Sen'Eau. waaw man la Omar Ba yore kàddu liggéeykat yi intersyndical bu Sonko. d' accord euh, yéen euh, fan yi yëpp ngeen dëkkate woon 48 euh, heures daal di koy dàbbaliwaat naka nga mën ñoo évaluer seen grève bi depuis 48 heures yi ngeen njëkk a décrété. waaw comme niñ ko xamee Sen'Eau dafa nekk si jafe-jafe fan yi jafe-jafe yu tar jafe-jafe yooyu daanaka moo yóbbee liggéeykat yi gën yëglu yëglu ndax anam yi ñuy liggéeyee dafa jaarul yoon. tamit ba yor ngeen suñu fay jaa jaarul yoon ba seen oo ñëwee ba léegi jafe-jafe yi teggeekuwul liggéeykat yi ba tax na fan yi ñu fas yéene yëglu yëglu boobu nag ndëkk nañu dogal ñaari fani grève si altine beeg talaata bi ginnaaw loolu toog nañ gis ne suñu njaatige waxul dara si lu jëm si ñaxtu liggéeykat yi looloo tax ba ñu dajewaatee ñu tàbbaliwaat euh, grève bi maanaam xàppatiwaat yeneen ñaari fan mu nar a door euh, tey jii ak suba. Mhm. Euh, lan ngeen di ñaxtu exactement lan mooy seeni point de revendication. waaw ñaxtu bi nag euh, boo ko seetloo ëpp na ñaari at ak léegi ñu ngi daw ci ginnaaw booba léegi kenn fu laaluñu ñaxtu bi weesuwul liggéeykatu liggéey biñ gën a jàppandi ndax liggéeykatu Sen'Eau ñu ngi liggéey ci anam yu jafe-jafe jafe yu tar booba léegi ñu ngi ñaxtu loolu seen jaatige saafarawu ko beneen jafe-jafe bi dafa jëm ci mbirum payoor yi ndax payoor yi dafa néew néew boo xam ne méngootul ak jamono lu ëpp ñaari at lool tamit ñu ngi koy jéem a sàkku booba léegi suñu njaatige fatt ay noppam tajay buntam nanguwul teg dara ci kaw taabal bi ngir ngir ngir ngir saytu loolu le loolu moo tax liggéeykat yi ñoom mer ba futu teg ci tamit gisatuñu seen bopp si entreprise yi ni muy doxee looloo tax daanaka fan yi yëpp seen yëglu bi egg ci grève mm. à part payoor yi ngeen bëgg ñu yokk ko lan mooy yeneen jafe-jafe yi yeneen jafe-jafe yi mooy contrat stagiaire yi nga xam ne dafa bëri léegi daanaka bu ñuy recruter léegi ay stagiaire rek la ñuy recruter teg si tamit teg dañ leen euh, duñu jox liggéeykat yi jumtuwaay yi war yu ñu mën a defee seen liggéey teg si tamit euh, seen i payoor saa su ne muy gën di wàññeeku ak avantage yi ñu amoon ñu koy gën di roppat di ko wàññi daanaka deltu ginnaaw lañ dëkkee teg si liggéey bi gën a metti lu ñaar ñetti nit waroon liggéey ñu jël ko sëf ko benn nit ba kenn mënatul yëngu yooyu jafe-jafe yi daal dafa bari ba nga xam ne buñ ko doon lim sax daanaka duñ si jógee yooyu yëpp daal lañu teg si kaw taabal bi ngir euh, suñu njaatigee mën koo mën ko saafaral te booba léegi wutu ci saafara looloo tax fan ñu yëngu yëngu yëngu yëngal daanaka mm-hmm. Euh, ñu bëri doon euh, njortu ndax euh, ni seen grève bi du am porté ndax li ko waral am na juróomi syndicat foofu seen o ci biir juróomi syndicat yi ñaar ñoo ci dem grève yeneen ñett yi ñoom jàpp nañ ni déggoo nañ daal ak li nga xam ne ak moo di waa direction bi Euh, divergence boobu entre yéen syndicat yi foofu SEN'EAU lan moo ko waral exactement. waaw euh, boo seetloo ci biir seen o dafa am juróomi syndicat ci juróomi syndicat yi ñaar ñi mooy intersyndical yi dogal grève bi nii ñoom ñooy ëpp mbooloo ci biir entreprise ñeneen ñett ñi seen mbooloo bariwul ba tax na bañ defee élection ñoom seen bopp gis na seen mbooloo bariwul tek si tamit ñoom dañu ànd ak féetewoog direction générale bi bu direction générale bi wax ñu ne waaw lu bi ne ñu ñoom fas yéene taxaw xeex liggéeykat yi ëllëg ko ñuy xeexal liggéeykat yi léegi ba ko liggéeykat yi xamee dañu leen bàyyi foofu topp intersyndical bi ci xeex bi te ginnaaw xayma bi ñu def ci ñaari fan yi grève yi ñu amal gis nañ ne grève bi topp nañ ko ci quatre vingt cinq pour cent réussite bu baax a baax lañ ci am ndax liggéeykat yi ñu ngi ci ni ginnaaw ànd ak ñun ci xeex bi donc loolu moo tax sax ñun ñu gën a am fit ngir mën a continuer xeex bi ba tax na ñu dogalaat yeneen ñaari fan yi grève tey ak suba mm-hmm. Euh, est-ce que mot d'ordre bi ñëpp ñu ngi koy suivre. waaw ñëpp a ngi koy suivre ba ñu defee xayma def ay saytu xool ci région bu ne ñu ko ñi ñi di suivre gis nañ ne ñi ñi ñu ngi toog seen kër bank seen loxo daanaka liggéeyuñu ak as tuut di ciy liggéey daanaka gouverneur ak euh, préfet ñoom ñoo def réquisition jël leen di leen liggéeyloo par force loolu nag moom euh, moo tax ak tuut liggéey waaye loolu gàllankoorul dara ci réussite wu bi mu bi bi ñu tàmmale. kon daal bu ma la déggee yéen seen euh, syndicat moo gën a représentatif moo gën a am euh, doole euh, ak yeneen yeneen ñett yi. waaw noon loolu moo am moo ëpp doole te doole boobu wane nañ ko ci grève yi wane nañ ko ci élection yi ba ñu defee élection ñun ñoo ëpp mbooloo ci biir entreprise mhm. donc loolu moo tax sax ñu gën a am fitu continuer xeex bi ñu xeex ndax xam nañ ne mbooloo liggéeykat yëpp a ci ñu ginnaaw pare pour xeex xeex. Mhm. Euh, gannaaw xeex bi 48 heures yi suba lay jeex lan ngeen fas yéene def lan mooy doon suite bi ban plan. waaw ñun nag ñun nag ñu ngi déglu suñuy njaatige. boobu ba léegi ba ñu tàmmalee grève bi ba léegi yëngatuwuñu daanaka dafa day wane ni rek ñi fullaalu ñu liggéeykat yi. donc euh, loolu moo tax euh, ñu nit fi ñu teg suñu tànk duñ ko teggi fi lépp suñuy ñaxtu saafara luñ ko looloo tax ñaari fan yi sax ñu sàppati buñ ci pare mën nañu continuer waat suñu xeex fii léegi di dee déglu wuñ ñu saafaral suñuy jafe-jafe yi. Mhm. Euh, ndax di ngeen dem ba euh, couper robinet yi ci ndakaaru ak li ko wër comme ni ngeen doon menacé bu dee euh, saafaraal wuñu seen jafe-jafe ndax di ngeen egg foofu. waaw grève bi nag day soog a door rek moo tax ñu bëri ba léegi buñ tijjoo seen robinet yenn saa yi ñu gis ndox a ngi ñëw donte am na yenn quartier sax ñu commencé mante ndox wante grève bi day soog a rek grève bi grève bu yëglu la daanaka comme que day soog buñ demee ba ci biir nag gis ne ñu ngi ko seetal ñëpp parewuñu pour defal travailleurs yi seen i seen i fajal travailleurs yi liggéeykat yi seen i jafe-jafe bu boobaa grève bi mën na àgg foo xam ne kenn du ko bëgg mën na dem ba ci ndox ñàkk fii si dëkk bi wante ñu ngi am yaakaar ne duñu àgg foofu ndax suñu buntu tëjuwul ngir waxtaan ngir wutal saafara ñi jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la liggéeykat yi di dund fii seen ëpp Mm. mais boo leen coupé ndox yi de est-ce que du doon euh, euh, est-ce que du metti est ci consommateur yi. waaw bu lu ñu gënal dina metti nag waaye yaakaar na ñu ngi ñu ngi ñu ngi am yaakaar ne duñu àgg foofu te autorité yi ak euh, direction bu Sen'Eau ñoom ñëpp xam nañu problème yi si am am nañu yaakaar wér ne balaa ñuy àgg foofu dinañ yëngatu régler situation bi balaa boobu waaye buñ toogee defuñu dara ñoom. di xool travailleurs yi di leen seetaan di leen ñàkkal fayda bu boobaa travailleurs yi dinañ jël seen responsabilité bu jaree grève gi gën a métti it dana métti ndax ñun sax boo xoolee seetee ba si biir xeexuñoo population bi xeexuñoo nguur gi lan rek lañuy xeex muy liggéeykat yi seen condition yi ñuy liggéey gën a jàppandi seen payoor gën a jàppandi ngir liggéey bi mën a jaar yoon loolu daal mooy si suñu mébét te fas yéene nañ ko xeex ba ah, ba ba ba am si liñ Omar Ba tey ñu bëri ci euh, askan wi ci consommateur yi ñi ngi ñaxtu ni euh, facture yi euh, facture o dafa cher lan nga jàpp ni moo waral facture yooyu di cher. waaw seeraayu facture yi ñëpp a ngi koy jooy. boo seetloo sax daanaka ñëpp ngi jooy ci seen o liggéeykat yi ñu ngi jooy kontaanuñu nguur gi sax bi ko indi fii kontaanul consommateur yi maanaam client yi waxi yi ñoom it kontaanuñu ci Sen'Eau facture yi moom seeraay bi. ñëpp a ngi koy ñaxtu ci ba ci yeneen région yi ak Dakar ñëpp a ngi koy ñaxtu te yëguñu fenn fu prix ndox mi yokkee fii si Sénégal ba tax na ginnaaw xamuñu ñu ñi di liggéey ci biir sax lu waral facture yooyu yokku moo tax euh, nguur gi moom si boppam nee na dina def audit pour saytu mbir moom xam lu tax mbir yi yokku ba tax na ñun ñu ngi tënku ci loolu ñu ngi xaar résultat wu audit boobu nguur gi ne da koy def bu boobaa ñun ñi si bopp ñu gën a mën a xam facture lu tax mu cher mm-hmm. Euh, qualité ndox bi itam Omar bokk na ci li nga xam ne askan wi itam ñu ngi koy ñaxtu lan moo ko waral. loolu yëpp day wane ne liggéey bi am fii ci Sen'Eau dafa dafa teguwul ci yoon liggéeykat yaa ngi yëglu parce que yëglu boobu dafa am fi ñu ko wéer te comme que liggéeykat yi kontaanuñu liggéeykat yi gisuñu seen bopp ci liggéey bi te liggéeykat yi ñoo yore liggéey bi ba tax na boo seetloo ñàkk kontaan ci liggéey ci Sen'Eau loolu yëpp loolu lay indi ba tax na bu ñu bëggee indi saafara ci mbir moomule foog ñu saytuwaat liggéeykat yi yan anam dañuy liggéey ak jan anam dañ leen di fayee seen payoor. lan nga jàpp ni moom mooy solution bi ngir ñu saafara li nga xam ne mooy euh, facture yu cher yi wax euh, ak li nga xam ne euh, moo di qualité ndox bi ndax ñaxtu yi bëri na lool. waaw ñaxtu yi nag moom dana continuer di bëri su lekk nit ñu jiite xamuñu ñoom fi ñu jëm teg si tamit liggéeykat yi kontaanuñu ci seen eau bu boobaa tant que ñu ngi tegu si yoon boobu rek nañu jàpp ne liggéey bu jaar yoon du mën a am teg si tamit kontante bi nit ñi doon xaar ci seen o bu boobaa kenn du ko gis. kon jàpp nga ni donc il faut ñu satisfaire seen revendication euh, ngir liggéey bi war a mën a mucc ayib. waaw loolu mënta ñàkk ndax ku ne liggéey wax liggéeykat ginnaaw liggéeykat yi yore liggéey bi ñoom kontaan nañu gisuñu seen bopp ci seen o bu boobaa lu ñu gis rek nañ xam ne loolu tam. bokk na ci lu ko waral ba tax na balaa ñuy saafara dara nañu saafara d'abord liggéeykat yi seeni seeni jàngoro seeni ñaxtu seeni mébét ngir mën a teg liggéey bi si yoon bi mu bi mu war a tegu ba ñëpp gis ci seen bopp loolu moom dafa doon loo xam ne daanaka mënta ñàkk. d'accord Omar Ba ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. di fàttali yaay porte-parole intersyndicale euh, des travailleurs de la seen SEN'EAU.